amu ci kenn ci ñoom ku ñemee dem ci sama turandoo te tàgguwulam kenn maa la ko wax loolu moo am ndeysaan Alaaji Baara Njaay nag moom moo ca gën a doy waar ndeysaan waaye booba tànk yi sax dox bu baax mënatu ko mu ne ma dama bañ rek sunu daara ji ngeen def ko daaray ambiance def leen ko daara tarbiya moo gën <laughs> wala ndeysaan dama bañ rek sunu daara ji ngeen def ko daara ambiance def leen ko daara tarbiya moo gën ma ne ko waaw naa ko jottali ñu ma ko war a jottali El Hadj Bara ma ko wax wala ndeysaan moom itam dafa dem rek gaañu <laughs> yàlla xam na ko. ñoom dañuy tàggoo dëgg-dëgg